مشتر منه إن الباهدين من ساره كأيس تار أبدا كما له خدما يهواه أو تارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي bokki taalibe yi amaat nañ mbégte toog ci barab bii nga xam ne barabu fajukaayu aajo la barab bii nga xam ne ca la sunu jàmbaar ja nekkoon di Serigne bu Mbacké moom xaadimu rasul gane àdduna ci juróomi fan ci weeru koor liggéeyal yàlla ci alxuraan wuutu ca Serigne Touba ci jàng ak jàngale ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor dëppoog laylatul xadar Serigne bu delluwaat àjjana bis boobu nag la njaboot gi toog di ko fàttaliku ci alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi ñu delluwaat nag ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa mi nga xam ne mooy borom kër gi laajaat ko digal mu jox leen ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ànd ak rakkam yëpp nag ak taalibe yi ak seex yi fas ko yéenee woote. di jottali kàddu Serigne bi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci kër Serigne bu ñu dee ko ko xoole sëriñ bi wax ne mi ngi nuyu bokk yëpp di leen jottali ay cantam ci li weesu lépp. te di leen fàttali bis bii nga xam ne moom amul dara lu gën a rëy sëñ Souhaïbou bu ndax moo ko boole sëñ Tuubaa kon nag bisub sëñ bu ñëw na mi ngi koy yëgal ñi ko bokkal ñëpp di ko yëgal ñi aju ci moom ngir sëñ Tuubaa ñëpp di ko yëgal ñi bokkal bokk gi ñëpp di ko yëgal bokk jullitam yëpp gannaaw bu ma yebalee ci sëñ Muntaxaa nag laa ndigal ndax li ñaan di baax baax li jàng alxuraan di baax baax lu mu mën a doon ci àddina nun duñ ko def te amuñ ci ndigal rawatina at yii ni mu demee woon ba tax kenn ku ne toog sa kër jàng alxuraan kon laajaan nañ ndigal sëriñ bi ba xam sañ nañoo dajale mbooloo mi fii mu joxaan nu ndigal ne tabaarakallah am ngeen ci ndigal mën ngeen ko def na ngeen ko daa defe loolaa waral nag mu woote waat jataay bii ngir yëgal bokk yëpp ne màggal gi danañ ko def ren incha allah mi ngi sant ñëpp nag di ñaan nag liggéey bi sëñ Suhaybu bu liggéeyal Sëriñ Tuubaa képp ku ci jàpp képp ku ci ñëw képp ku ko ñaanal ak foo mën a ne yàlla lay doon sa pajug aajo adduna ak àllaaxira mi ngi ciy woo bokkam yëpp bàyyi wut kenn di ko yëgal ñi nga xam ne nag ñoo ci ëpp ëpp solo ci yëf mooy jànkate alxuraan yi sëñ daara yi seeni daara nañ jàngal sëñ Suhaybu bu lu ñu mën ci ay kaamil jox ko ko addiya ak daara yi kaamil yëpp fuñ mën a ne ci këri sëñ Tuubaa yëpp ak dëkki sëñ Tuubaa yëpp di ko yëgal bokk yi bokkal sëñ Tuubaa yëpp it kenn ànd koog ñoom ni ñu ko àndi woon démb ak tey di siyaara bokkam yëpp di leen jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ Abdoulaye Diouf dafa wax ne mi ngi soññi boppam mi ngi soññ képp ku aju ci moom góor ak jigéen amul dara loo xamante ne bii tolal na ko ni bis bii di soññit bépp seex boo xam ne danga nga aju ci kër sëriñ Souhaïbou ak foo mën a nekk di nga soññ sa mbooloo góor ñi ak jigéen ña di soññ itam bépp moo xam da bu takk der la moo xam daa aju ci kër gi nu bokk nag waajal bis bi te waajale ko ni nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi muy tàmbali njàngam alquran mi ak xasaayid yi te di ko sellal ak istixfaar yi ak saatu ala nabi te di ko sellal te di ko hadiyal sëriñ Suhaybu di fàttali dongay taalibe fàttali taalibe yi moo xam ñu takk der moo xam ñu tëkku der nañ ni seen bopp soññi góor ñi soññi jigéen ñi te xam ne noo war a taxawee bis bi dalal gan ñi lu di liggéey it noo ko war a def ba gan ñëpp yow nu door a dellu fi sëriñ bi mu ñaanal nu comme ni ñu ko baaxoo defee rek xam ngeen ne juróomi fan juróomi fan ci weeru koor yi fu mu agsee jox ndigal ñun njaboot gi ñun taalibe bi ñëpp ñu ànd taxawu bis bi kon nag ginnaaw bu ñu ndigal ci ñoom ndigal loolu ñu ngi koy jàllale ci mbokki taalibe bi yëpp di ci jiital nag mbooloo mi nga xam ne ñoom na sëñ bi dénk liggéeyu màggal gi muy comité d'organisation bi ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ñu xam ne ndigal ñëw na kon nag nañ ko baaxoo waajale nañ ko baaxoo taxaw nañ xam ne nañ fa si am nañ am pas-pas yokk ko waaye bu ci dara wàññeeku nañ nañ nañ nañ nañ commencé ndaje yi te yaatal ko ci tal bi ci tal bi yëpp ci daayira yëpp. Euh, sant la leen baax nag ci bis yu weesu yëpp ci taxawaay yëpp dara desu ca kon dañ leen soññaan rek ñu gën a góorgóorlu si gën gën ko waajal baax a baax moo xam ni ma ko wax rek fii si biir réew mi ak yi nekk ci bitim bitim réew xam ngeen ne ci bitim réew sëriñ bi joxoon na ndigal. Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké moom moo ko moo moo yor euh, taxawaayam foofu màggal yi ñuy def ci bitim bitim bitim réew yëpp moo koy def euh, moo koy def ànd ko ay doomam euh, am na ci foo xam ne ca charte nañu ah Sëñ Saliou Mbacké moom Sëñ Saliou Mbacké moo fay nekk ak yeneen bari yu bari bari yoo xam ne danañ fa def màggal gi te xëy na moom ay tànkam mënut a jotee fépp waaye fu mu ci fu mu fi jotewul am na am na ci ay doomam yoo xam ne danañ danañ fa danañ fa dem. kon ñoom it suñu bëgg leen jox ndigal ci màggal gi euh, ku ci ne fa ko daan defee na ko daan defee rek nga defee ko noonu kon loolu ñu ngi ko soñee bu baax a baax liñ ci liñ ci gën a fàttali di ko gën a soññee rek mooy bis bi nga xam ne daan nañ ko def di ko waajale màggal gi te mooy bis bu am solo muy bis bi ñuy amal amal mbalem ci dëkk bi loolu jàpp nañ ko mu war a nekk euh, ajjuma benn fan ci weeru avril muy le premier avril loolu it bis bu am solo ndax ne xam na ne ki ñuy ñuy defal bis bi ku set woon ku bëggoon set la woon kon bis bi nga koy defal loolu lu ñu ci war a bàyyi xel la moo tax sëñ baa ngi ko jox na ci ndigal te mi ngi koy soññee fii ci fii fii ci fii fii ci kër gi fii ci Madiane ak fépp bépp barab boo xam ne rek euh, doomu sëriñ bu nekk na fa ñu fay ñu fay màggal gi ñu ngi ñu bale moom nañ ko daan nañ ko daan defee bis ak sa ñëpp ñoo fa nekk génn setal setal barab yooyu bu ko defee it fi ñu ko barab bu ci ne dinañ fexe ba fa war lépp ñu yóbbu fa bam bam set mooy bis bi nga xam ne moom kon mooy jiir màggal gi la ci des si màggal gi ni ko sëriñ bi waxee rek moom bu ñu ci àggee loolu mu wax ci daaray alxuraan yi ak ci daaray yi eh, nga xam ne màggal gi ju jubsee danañ danañ danañ danañ danañ jokkook daaray kaamil yi ak ak eh, daaray alxuraan yi ko suñ bi woon ànd ko waa rabet bi ñu jëtal si si Cheikh Amadou Bassi moom Cheikh Amadou Fall ak Cheikh Amadou Bassi moom si Abibu ak mboolem yeneen kuréel yi yeneen kuréel xasit yëpp nañ ko baaxee ànd ànd ak ñoom loolu suñ bi soññee na ko léegi Euh, di di di soññ nag daayira bi nga xam ne mooy daayira tournée si yi bi di jaay gis lu xulóob nga xam ne sëñ euh, Abou Mbacké moom Cheikh Abdou Lahad moo ko jiite mi jataay bi euh, ñoom la sëñ jox jox joxoon ndigal ci loolu wàllu li commission culturelle bi ñoo ko ñoo ko yor ci màggal ñooy taxu njàng bi alxuraan njàng xas mi mbooloo ñi fiy ñëw di andi ay ay ay limi njàngit bu ñëwee ci penc ma ci base ba danañ danañ danañ fekk ah, ñu ànd ko ñu ànd ko it nag ak fédération soppe Serigne Souhaïbou bi nga xam ne Serigne Abou Mbacké Daaru Salaam moo ko jiite kon suñ mag leen soñ bu baax baax ñu ñu taxawu ñooñu euh, dalal leen toppatoo leen euh, ba ba ku fi ñëw ci jàng alxuraan yëkkatale wala jàng xasida nga am barab bu sell bu dal boo xam ne na da nga ko def